jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun seen télévision Futur Média seen émission Sama Kër bi bokk nag ci émission yu njëkk yu ñuy amal euh, ci atum 2020 ci janvier bi kon euh, di leen ñaanal yéen ñëpp une très bonne année comme nañ koy ñaanee euh, saa su ne ku ci nekk nag yàlla na la yàlla may kër Euh, ñu ne ñu ne amiin euh, donc euh, ci émission bi tey nag dañoo fas yéene daal di rek jox kàddu askan wi bu ñu nee jox kàddu askan wi loolu dafay ñeel wàllum tabax parce que xam ngeen ne projet bi fësoon loolu loolu loolu loolu loolu loolu président de la république fësal ko wax ko mooy cent mille logements yu ñu namm kon daal di tabax fii lekk juróomi at yu ñu tokkoon ci boppu réew mi. ndax loolu askan wi ñoom euh, kon ab approprié nañu euh, kon projet bi ndax xam nañ ci lu bari information yi ndax mi ngi jàll ndax ñi ngi inscrire euh, tey nag dañuy def une émission bi nga xamante ni émission Vox Populi la danañu dem kon ca Kaolack dem Ziguinchor mais aussi fii ci Ndakaaru ñu tànn département bu Rufisque ngir rek daal di jox askan wi kon li nga xamante ni moom mooy kàddu gi mais aussi fii ci Dakar centre ville kon nag tey ji émission Vox Pop la pour askan wi daal di wax la la ñu xalaat kon ci 100 000 yi ñu ah, loolu la baax na waaye loolu la baax na waaye man dama ci xamul dama ci yëgul dara wala li nga wax nii maa ngi soog a dégg nii waaw loolu moom lu baax na moom loolu moom ku wax mën nga jël mais baax na waaw. mais mosoo ko dégg. wala ko na la. bu baax sax su ma su ma nga la ñuy dugg ni ñuy dugg daal ba ba am loolu ma dugg si waaye xamoo ko xam xamoo bunt bi waaw loolu bon en fait euh, dégg naa ko waaye nag awma ci lu leer euh, dégg naa daal ñuy wax ne euh, état bi dafay am ay logement yoo xam ne yi daf koy def à la disposition des nécessiteux bon loolu daal laa jot a dégg muy rek loo xam ne bon bu nekkee ne noonu ma ko déggee noonu la amee en fait rafetlu naa ko te it mbir la moo xam ne bi dafa ñëw ci waxtu yi mu war a ñëw parce que boo seetee bon euh, àlakulli alin askan wu nekk am na ñoo xam ne ñu mën nañ seen bopp mais aussi am na ñoo xam ne ñu mënuñu seen bopp ñi nga xam ne ñoom mën nañu seen bopp ñoo ñu taxul ñuy wax kon donc ñi mënul seen bopp ñooñu ñoo tax ñuy wax nit ki nag bu nekkee ni dafa mënul boppam am koo xam ne kii def ko tàllal perche pour mu jàpp jàpp ci euh, yaakaar naa ne loolu mënuñoo def lu rafetlu ko kon donc euh, bon en fait euh, déggoo ci njëlbéen ga sa laaj ba demal na dégg naa ko mais superficiellement laa ko déggee maanaam ni ma ko déggee daal du déggin woo xam ne wii tax na ma xam ca dara ok donc xaw ma ko en profondeur c'est la raison pour laquelle euh, munuma ci inscrire parce que nit ki mënta inscrire ci loo xam ne lii xamu ko su bon en fait euh, xam nga dax ma bëgg a mel ni dañ ne ay logements sociaux donc mbir la moo xam ne dafa am ñuñ ko waajal euh, léegi nag kan moo bokk ci ñi ñu ko waajal ak kan moo bokkul ci ñi ñu ko waajal est-ce que man sama statut permettre na ma man ma inscrire ci wala suma statut permettre ma ma inscrire ci loolu nag ça dépend ci niveau ba nga xam ne man ca laa toll kon donc maa ngi waxee ci ne bu nekkee ne man yeyoo naa ko bëgg naa cee inscrire bu nekkee nag ne yeyoowuma ko naa ko jox ña nga xam ne ñu ñoom ñoo ko yeyoo. waaw yëg naa ko man dèjà sax inscrire naa ci. waaw waaw di ko rafetlu tamit aussi bu baax a baax. ah am naa caaga parce que lu toll ne nguur moom bu demee bay def xanaa du defantu laa foog moo tax moom la ci yaakaar te tamit ki ma envoyé message bi tamit foog naa tamit kooku du nitu caaxaan waaw man tamit ma am ci yaakaar bu baax man tamit daal di inscrire luñ ci laaj yëpp man def naa ko waaw li toog boog di dundee yaakaar di xool waaye nag loolu moom nañ ko nañ ko nañ ko daal na dëggu waaw tey askan wi ku nekk mën cee gis sa bopp waaw mu bañ a yem ci kenn. parce que société dañ ko daanaka luñ koy luñ koy laajee sax dañuy laaj ni pour ñu néew doole yi waaw dèjà loolu la man moom inscrire naa ci te am naa ci yaakaar daal incha allah déedéet ma kër moom ci laa ñaan yàlla am ci. Euh, programme la boo xam ne man gëm naa ne am na njëriñ waaw ci li ma gis man waaw am na njëriñ. waaw man non man nag jotuma woon inscrire parce que dafa am ay formulaire yu ma waroon a mottali daal mais incha allah dina dinaa bindu fii ak euh, dans deux jours daal. waaw man daal damay conseil ñëpp dem inscrire rek parce que loo xam ne pour réew mi la kenn ëppalewu ci kenn ku si nekk da ngay inscrire rek ku si sa wërsëg nekk nga jot si. mais man li ma ci njëkk a xalaat mooy ñi nga xam ne ñoo néew doole nañ leen jiital ci loolu. gëm si gëm naa ko parce que man gëm naa ne bépp projet bu ñu teg rek nan nit ñi dem. moo gën ñu naan li ay naxe mbaay la ak leneen ba ëllëg ñi nga xam ne ñoo inscrire jot ñoom ñuy toog di ko rëccu comme daal euh, inscription la nañu inscrire xaar yàlla. waaw man xalaat boobu laa ci am. parce que tamit yàgg na fi ay programme di am ñu koy négliger ñeneen ñoo bénéficié wu ko man daal maa ngi naan programme bi bu am njëriñ la na ci ñëpp dem inscrire mais également tamit état bi nga xam ne moom moo teg projet bi. mu jàppale ñi nga xam ne ñoo ñoo néew doole man ñooñu laa ci njëkk jiital daal. gërëm bu baax di leen sant. projet bi projet bu baax la waaw projet bu baax la euh, puisque comme ni ma ko waxee euh, dina permettre ay borom kër ñu am quand même fu ñuy loger seen famille mais mun nañu ne euh, nombre bu mu wax ni cent doyul dafa tuuti bu ko mënoon yokk mu yokk ko voilà bu ko mënoon yokk mu yokk ko. beneen élément bi comme président de la république moo wax am nañu yaakaar que effectivement. dina ko réaliser waaw parce que bu ko réaliser dina doon vraiment euh, satisfaction peuple am waaw dina doon satisfaction peuple am d'ailleurs bu njëkk ba état dafa doon tabax ay cité peuple bi ñu bénéficier wu ñu koy fay ndànk-ndànk ak euh, ay conditions yi nga xam ni attan nañu ko président euh, na dem à partir ci revenu sénégalais yi voilà mu nekk fonctionnaire mu bañ a nekk fonctionnaire na jël loolu yëpp en compte revenu sénégalais yi donc à partir de ça dina permettre ku nekk nga am logement nga am kër. waaw en tant que borom kër j'espère que loolu idée bu baax la mais su ko gënoon a gën a mën a yokk aussi dina arranger borom kër yi parce que am na ñi nga xamante ne pour am dëkkuwaay. léegi appartement yi cher na. liggéey amul am na borom kër yoo xamante ne am nañu fu ñu bëgg dugal seen njaboot yi mais yàlla mayu leen doole boobu franchement parler am na ñi nga xamante ne dañu am problème logement xam nga te ñu ngi njaboot amuñu liggéey amuñu xëy mooy loolu daal waaw fekkee Ziguinchor tam aussi am paaram waaw parce que dëkk bi métti na jeunes yi liggéey ñu nga mooy loolu daal loolu bonne initiative la parce que fu mu ne nii ñu bëree bëgg nañu am kër mais xam ñu nu ñuy def mais bu fekkee euh, président bi jël na initiative bi def ko loolu c'est très important ku mën a jël nga jël nga fay ndànk-ndànk c'est plus kii quoi c'est plus rentable moo gën quoi doyul noonu mais xam naa comme une première fois baax na pour tout un début léegi fii ba si kanam xam naa dina dina gën a yokk quoi loolu tamit c'est très important war na xool ñu amul salaire tamit mu xam nuñ ko mën a fee par rapport ak taux bi ak tout ça pour ñëpp euh, mën a kii quoi accéder. ah loolu moom idée bu baax la loolu moom idée bu baax la quoi moom baax na quoi trop baax na quoi bëgg naa tamit mu jën a yokk loxoom surtout Ziguinchor mais surtout surtout ñi xam ne amuñu doole. ñoom daal suñu leen jàppalee daal dina baax trop quoi si domaine boobu quoi man si sama xalaat quoi parce que fu mu ne nii am na ñi nekk fii à 100 pour cent nekkul ñuy liggéey nekkul ñuy def dara amuñu amuñu kër. Euh, surtout dañuy dund su location te location fu mu ne nii daa wàññi mais dafa des mais am na ñoo xam ne dañu yokk su doon daf koy def na wàccee prix bi mu kase prix bi ñëpp mun a am quoi ñoo xam ne ñi ñi doy daal waaw si sama xalaat quoi. ok dégg naa loolu dégg naa ko maa ngi ko yëgee ci site internet bi. waaye loolu daal man li ma ko gisee incitatif bu baax la quoi parce que dina dimbali néew ji doole ji nga xam ni que bëgg nañoo am kër. lu ñuy ñaan rek président Macky sàll mu jéem cee boole ñi nga xame ni que amuñu salaire te tamit ay borom kër lañ te ñu bëgg a liggéey pour am seen kër ñu xool lu ñu leen ku ko yombalale ba nga xam ni kër yooyu dinañ ci mën a ñun daal ñu ngi koy ñaan waa Ziguinchor tamit mu xool ñoom ñu ci dimbalee ñun tamit ban man a am ci kër yooyu xam naa Macky Sall bu demee ba jël ay responsabilité mu waxee noonu parce que bien avant jëloon na responsabilité pour ñu wàññi location bi dox na ci ay jéego tamit comprendre nga kon daal am naa yaakaar ne bu jëlaatee beneen initiative pour jàppale euh, doomu aadama yi ko ñu am kër yaakaar naa loolu dina gën a amili yoxe nekk na loo xam ne soxal na doomu aadama yi te nekk loo xam ne peut-être ñëw na ci moment mais ñu ngi ñaan monsieur le chef de l'État mu def ci kentalaay kattanam bu buñ ko politiser politique moom bu ci raxee rek day doy waar mais buñ ko tegee ci yoon rek politique bañ cee rax mu teg ci ay nit ñoo xam ne vraiment dinañ ko doxal ci bëtam incha allah lépp dina jaar yoon mais bu buñ ko bëggee politiser moom vraiment man je ne suis pas pour mais gëm naa ne li mu wax moom dina ko def. parce que borom yërmande la te macha allah li mu yéene Sénégal xejul ci sénégalais yi kon yàlla na ko yàlla defal jàmm ba initiative yi mu réaliser ko. Yaya Cissokho di jàngalekat dëkk fii Tëngéej. 100000 logements yi d'abord si si juróomi at la maanaam euh, at bu jot 20000 logements la euh, lu baax la ci sama gis-gis. waaye da ci am loo xam ne euh, daf ma xaw a jaaxal tuuti. Euh, ay gëstu yu ma jot a def ñu ngi commencé am problème parce que dañuy gis ñoo ñëw ñi ñëw di inscrire ci ay coopérative bu ñu déggee cent mille logements yi dañoo commencé di génn ci coopérative yooyu bëgg a dem inscrire ci état day indi day indi problème bu ñu deful ndànk boo téeméer yoo jël euh, juróom-ñaar fukk yëpp ndakaaru la ñuy laaj. loolu day am problème te bu dee noonu la tëddee di nga gis koo xam ne Kédougou a dëkk wala dëkk Kédougou wala dëkk Tamba wala di fa liggéeyee bu amee possibilité tabax Ndakaaru Ndakaaru lay ñëw di tabax te bu dee dañuy bëgg di désengorger Dakar bëgg nit ñi di dem ci région yi dafa dëkk il faut ñu faciliter ñooñu wala il faut ñooñu ñu beral leen loxo. Fante Gueye man lu may liggéey couturière la mais en même temps damay ñaw damay jaay commerçant la cent mille logement yi de vraiment man kontaan naa ci ndax logement moom ku nekk xam ne dafa jafe te ñoom niñ ko waxee bu dee noonu la dañuy jàppale askan bi ah man de maa ngi ci biir man am na lu bëri dañ koy programme ndax politique moo mel noonu des fois bu si politique duggee duggee dañuy dem ba si biir du yem fenn parce que kooku su wàccee keneen ñëw kooku day ñëw bëgg a indi beneen méthode poli politique am xam nga mais nag bu fekkee ne nag bii moom kii kii toogaat beneen yoon mu ngi koy yeggali loolu la ñuy souhaité. waaw programme bi nga xam ne ne état du Sénégal à travers son ministère du logement lancé na ko pour euh, l'opération de cent mille euh, Sénégal yëpp a ko rafet niñ ko rafetloo mooy quatre-vingts pour cent je dirais euh, des Sénégalais. il sont tous bés bu jot à la recherche d'un logement dégg ngeen problème loyer yi ba état bi jëloon si ay mesures mesures euh, pour bess des loyers tellement dafa métti donc suñu demee ba état bi am un programme sur cinq ans war ko matérialiser te département de Rufisque war see jouer bu am solo parce que euh, si li ma jàngat lu bon bon bon 60 pour cent yi xam naa ne wala 70 pour cent yi daal le département de Rufisque lay wax te doo gisee effort bi si population yi am muy fonctionnaires yi di ambulants yi di ceux qui sont dans l'informel wala na ne euh, war nañu même dépasser euh, cadre cent mille logements yi. nous nous somme prêts en tant que institution d'abord à les accompagner c'est dans les inscriptions dans les formalités et même dans le cautionnement parce que tamit euh, institution yu bari gis ngeen ne am nañ ay coopératives d'habitat donc sunu ressort la tey non seulement dem inscrire leen mais gunge leen ci lii. maa ngi tudd Modou maa ngi sant Ndiaye. maa ngi dëkk Daaru Rahman waa fii gox bi ñun ñëpp fii la ñuy wutee fii la ñuy liggéeyee ñun ñëpp ñoo bokkul lépp ñun ñëpp benn lañu. waa tefes gi ñun ñëpp fi la ñuy liggéeyee. fi mu toll problème boobu la ñu am problème mu kër lañu am kenn ku si daw ku nekk yaa ngi xalaat kër yaa ngi xalaat jabar yaa ngi xalaat doom fii ñu fi ne ñëpp ay responsabilité lañu. loolu man ni ma ko gisee loolu lu baax la. loolu lu ñu si mën a gaaw sax day doon li nga xamante ne ñun ñii jeunes ñi daf ñuy arranger loolu lu baax la loolu ànd naa bu ñu sañoon mu doon suba lii mool di wax na bar na bar lu mu gën a gaaw gën a neex bu sañoon suba bu doon dañ koy mbaale ji dañuy jël gaal léegi léegi dem jëli ko mu ñëw. maay ngañ Cissé dëkk euh, Tëngéej quartier bu ñu naan Jokkul Kaw. man mécanicien la mécanicien scooter électricien mécanicien électricien. nit mën na ci gis boppam parce que ci loge cent mille logements yi ngeen dugg parce que biñ ko lancé ak léegi peut-être euh, nee nga ma mat na ay une semaine deux semaines mais information bi dafa desee jàll. parce que ñu mel ni ñun ba tey ñu ngi koy door a yëg lu ñu rafetlu la nag parce que tamit euh, nit amul lu dul dëkkuwaay bu fekkee nguur gi dafa jël ne day wutal nit ñi ay dëkkuwaay na nekk loo xam ne tamit du lu ñuy naxe nit ñi parce que Sénégal fi mu nekk nii liñ fiy naxe nit ñi dafa dafa bari trop dafa bari trop euh, ñu di ko rafetlu nag di ñaan yàlla mu àgg ci jàmm ñi si seen ñi muy seen wërsëg yëpp ñu jot ko mais daal man li may lancé mooy mu nekk loo xam ne lu sérieux la ñun sénégalais actuellement nii dëkkuwaay loo xam ne la moom la ñu yittewoo parce que képp koy dund borom kër guy dund dëkkuwaay lay la la yittewoo donc buñ la indilee na la dañu leen di defal ay dëkkuwaay yombalal leen ko na nekk loo xam ne dafa dëggu initiative bu rafet la initiative bu rafet la day euh, day permettre sénégalais yi euh, ku ci nekk euh, am dëkkuwaay dëkkuwaay lu am solo la ci ci réew loolu moom initiative bu rafet la ci à saluer. du ma ni comprendre naa ko trop waaye donc bu fekkee initiative boobu lay def day am na njëriñ daal. xaw ma nag nu ñu def pour inscrire nag loolu moom dañu war a communiquer dañ ko war a jàllale pour nit ñi gën koo xam information bi di jàll comme ça nit ñi gën a xam. nit ñi nit ñi gën koo xam parce que mbir mi daal dafa mel ni dafa xaw a nit ñi dañ cee xawul am information yu baax a baax waaw bu ñu ko mënoon jàllale bu baax ni ñi am ci information donc euh, ñu gënal daal. kon lan mooy sa gis-gis ci 100000 waaw loolu de man jàpp naa ne mesure sociale bu am solo la boo xam ne bii bu fekkee ne ni ñu ko waxee lañ ko defee. Euh, dina permettre ñu bëree baree bari ñu am seen dëkkuwaay te dëkkuwaay mooy li nga xam ne bépp borom kër soxla na ko mu ngi aspiré am kër am dëkk ci dëkkal ci njabootam ñu nekk ci sutura kon daal gis naa ne mesure bu ama am solo la à condition que ñu def ko ni ñu ko waxee. est-ce que yow ko. mesure bi. Euh, comprendre li tax ak naka la ñuy def ba am ci kër yi. waaw gis naa temps yi rek ñu def annonce ci presse bi wax ne joxe benn site boo xam ne bii ku ci bëgg ku mu intéressé nga inscrire ci. waaw man loolu rek laa ci jot a xam. ma euh, non man inscrire ma am naa sama kër. mais maa ngi incité samay doom pour ñu ngi ñu ñu ñu bindu ci daal. mënoon naa gën a leer euh, xam ci conditions yi nga koy amee ak nuñ koy amee ak nuñ koy joxee ndax gis nañ fi ay expérience yoo xam ne loolu lañ doon wax mais finalement dañ koy politiser ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti surtout ñi nga xam ne ñoo yor pouvoir bi te am loxo bu gudd ñoom rek ñoo ci ñoo ciy jëriñu kon jàpp naa ne communication bi daal war naa gën a yaatu ba nit ñi xam les tenants et les aboutissants xam na ni nga koy amee ak conditions yeeg ak euh, ñan lañ ko destiné daal. maa ngi jégal nag mais moom euh, xaw ma ci comprendre ma ci dara comprendre ma ci dara <laughs> désolé. bi ko lancé communication dafa waroon jàll bu baax ñu expliqué. waaw c'est ça aussi man dégguma ci dara nag parce que à chaque fois maa ngi déglu information bon. maa ngi koy doog a dégg nag ci yéen. 100000 logements yi de de lu mën a nekk la lu baax la mais nag souvent Sénégal dañuy li naan dañuy signaler gauche dem droite moo ciy faral di am quoi mais bu fekkente ni moom ni ñu ko waxee noonu lay demee vraiment dina nekk lu baax quoi et puis aussi bëggoon naa aussi ñu gën ko yaatal ci néew ji doole ji parce que souvent projet yu mel noon su amee ñi nga xamante ni bii ñooy waroon doole rek ñoom ñoo fay demaat fees mais bu fekkente ni néew ji ñu dëkkee biir banlieue des fois da nga fay gis koo xamante ni bii vraiment ak dëkkuwaayam da ngay da ngay waaru mais nag buñ jëlee genre yu mel noonu dugal ci dina nekk lu gën am solo communication bi moom des na parce que ba fi mu nekk nii man miy wax sax mënuma laa wax exact lii ak lii ak nii ak nii na la dem te avant ñuy def ouverture bi ak euh, cérémonie bi waroon na mën a xamal nit ñi dëggantaan nii nii nii la demee ba ku ci nekk boo ciy dugg mu leer ci sa bopp ñi ko xamul it xam ni lii am na ci réew mi ñu dugal ci seen loxo parce que réew mi ku fi amul kër bëgg nga kër te kër nekk na loo xam xamante ni dafa jafe kon lu leen koy mën a yombalal dañ ciy bëgg dañ ciy dugg mais nag vraiment communication bi moom des na des na parce que ñu bëri xamuñu nu mu demee dañuy dégg 100000 logements rek ñeen ñi sax dañoo defee dañ koy maye te fekk demeewul noonu. problème logement à Dakar ah, man dama kaa xaw a contesté parce que mbir benn affaire dafa am hmm? Dakar su loon def mille des milliers de logements yi ah te décentralisé ko si région yi parce que parce que waa fépp si région yi waaw waaye parce que lu feesal Dakar tey moom la ñuy wax ah. parce que logement yi du mën a mat fi nekk ni ñu fi dëkk yëpp Dakar mën leen wute ay logement fu nekk ni foog ñu décentraliser affaire yi ah ba xam ne région yi daneen fa créer ay emploi yoo xam ne daneen mën a reste si région yi di liggéey loolu moo feesal Dakar alors gis ngeen askan wi lu ñu rek daal di xalaat euh, ci li nga xamante ni moom mooy 100000 logements yi euh, bëgg nag communication gën a daal di euh, kon ñoŋ ci wàllu woowu mais surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk liggéey bi ñu gën di mën a di waxtaan waxtaan ak askan wi ne nag bu nekkee projet boobu antu na lu baax lay doon kon ci rek ñii daal di nekk fii ci Sénégal te mësuñoo rek daal di am kër de toute façon. danañ ko waxtaanee ci suñu yeneen jëmi jamono. yeneen partenaire di waa BHS waa banque de l'habitat du Sénégal di banque bi leen mën a dimbali pour ngeen rek daal di am kër. Euh, ci loolu nag euh, tax euh, waa banque de l'habitat du Sénégal ñoom ñoo nekkoon nag sponsor officiel bu seen habitat di ab kon xew-xew ci wàllum immobilier bi am fii ci suñu réew ci loolu nag banque bi da cee am tax taxawaay bu am solo bokk ci xew-xew bi ngir gën a mën a expliquer sénégalais yi fa la ñu war a mën a jaar pour rek daal di am kër ci anam bi nga xamante ni moom mooy anam yi gën a wóor ñu ànd ci ci image ci cérémonie d'ouverture bi mais aussi visite bi di euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne amaloon na ko ci stand bu Banque de l'Habitat du Sénégal. muus mi baax na ci kër gi ne saa ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gune kër gi. alors merci pour cette page de pub mais aussi remercier bu baax a baax suñu partenaire bi di banque de l'habitat du euh, Sénégal mais aussi Socosim Industrie ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, kon sponsor euh, bu émission bi mais gis ngeen aussi ci publicité bi li nga xamante ni moom mooy le salon de Bamako donc du 20 au 23 février ñu koy pare bu baax a baax promoteurs yi ñu ci gën a bari danañu dem kon foofee ca Bamako ngir wane li nga xamante ni moom rek la ñuy daal di def en terme de promotion immobilière mais aussi kilifa yi wane nan la ñu daal di construire les nouvelles villes Diamniadio Lac Rose ci la euh, bokk mais aussi 27 euh, pôles yeneen yi nga xamante dañ ko tabax Euh, ci Sénégal bi euh, ci Sénégal bi yëpp alors fii la ñuy tëjee émission bi wax naa leen ne émission bi dafay nekk euh, émission jox kàddu askan wi kon ci Sénégal njaay bi yëpp ñu wax ñoom lu ñu xalaat ci 100000 logements ci yeneen émission incha allah danañu ñëw ak yéen ci kon information bi dinañu sekk waxtaan ak kilifa yi ñu wax ñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di kon yelloo pour am ci 100000 logements yooyu mais surtout yan procédure la ñu rek daal di jaar pour moytu kon li nga xamante ni moom mooy naxe mbaay waaye tamit euh, euh, lépp lu ñeel ci wàllum faisabilité yooyu danañ ko waxtaanee ci émission yi ñu euh, dëgma la gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun seen télévision Futurs Médias ba beneen yoon incha allah ci yeneen xibaar yu ñeel mbirum foncier ak mbirum immobilier